am jiyee la ñu nemmeeku ci dëkk bi la di Ribot Escale nekk ci département bu Koungheul guddik altina jàpp lii di talaata ab xeex bu doxoon ci diggante ay xale ba kenn ñàkk ci bakkanam nekkoon ab sàmm boo xam ne dafa màngaasi woon ca gox boobee mbiri nag mu ngi xew guddik altina jàpp lii di talaata boori benn waxtu yu toftal fanweeri simili kile di Alpha Dem moom moome nag moo faat xale bii di ab sàmm di wuyoo ci njagaari taal ginnaaw ab xeex bu doxoon seeni diggante lépp nag mu ngi dooree ci téléphone kile di Alpha Dem bi nga xam ne dafa yàqoon mu jox ko kile di Samba Lam ngir mu daal di ko ko réparel jagalal ko téléphone boobee mu daal di woon jox itam lu tolloog téeméer ki nga xamante ni moo di Amadou Lam loolu la nag daal di mujj jur ay jàppante si diggante kile di Amadou Lam ak kii di Samba Lam ak Njagaari Taal mi nga xam ne moom lañ ci faat kile di Alpha Moome nag moo daal di jël lii di jaasi daal di ko dóor ki nga xam ne moo di Njagaari Taal di ab sàmm buubu màngaante woon ca gox boobee mu ñàkk kanam ci tàng-tàng bi kile di Samba Lam daal di ci jële ay gaañu gaañu loolu mel nag ginnaaw bu mu xewee la ñii di way gendarmerie ñëw ca bërëb ba ngir daal di fekkee ci jiyee ju nu mel bi nu ñëwee nag fekk nañ kilo di njagaari taal mi faatu lii di deret di bëri daal di ko wër ginnaaw ga nag lañ jël ab néewam yóbbu ko ca district sanitaire bu Koungheul ñii di gendarmerie nag ubbi na ci blanquette jamono jële itam teg nañ loxo ki nga xamante ni moo daal di def ñaawteef googee ubbi ci blanquette rek ngir gën a xootal xóotal ngir xaadi xam dëgg-dëgg lu waral jëf ju nu men muy faatu benn xale bi wuyu ci njagaari taal di ab sàmm bu mànganti woon ci dëkk bile di Ribo Escale ginnaaw xeex bu doxoon seeni diggante ci la mujj ñàkk kanam jee jooju yépp nag xew guddi altina jàpp lii di talaata yemoog ñaar fukki fan ak juróom ci weerum juillet 2023